salaamaaleykum sëñ Dramé. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waa ñun Kéemaan TV ñoo bëggoon waxtaane yow ci héritage bi fi sëñ Cheikh euh, Al Maktoum Baye. waaw tabarkalla euh, sëriñ Cheikh ñu ngi leen di fay te di leen di gërëm itam nag ndax yéen itam bokk ngeen ci ñi nga xam ne xew-xew bi tuuse ne leen ba tax ngeen déplacé wu bàyyi seen itti yépp semaine bi yépp ngir xam rek li fi sunu kilifa Cheikh Ahmada Tidiane Al Maktoum li mu fi bàyyi xam naa nag dina jafe pour ñu jim cee dugg ndax li mu fi bàyyi bari na bari boo xam ne ci yar ci jàngale waaye bala ñu sori sax ñu jaale suñu kilifa suñu sëriñ suñu mag alfadilatu seex alxaaji malik si Maodo di jale hitam suñu kilifa suñu bay serigne mbay si al mansour ak khalifa general bi yep ak ñep rek lolu mom jaaroon nañ ci sax waye mbir mi dafa nek lu lo xamne xel mu nu ko fatte serigne bi jangalem ku ngay tàmbali it xana ngay def ci li nga man rek ndax ak jagle la won ci yalla waye duul lu nit wax ndax yaakaar naa ne conférence léegi bari na ci àdduna bi waaye moom mooy ki ko njëkk a tàmbali ci Sénégal ci lu ma xam te dara warulu ko woon loolu rek bëgg a yee nit ñi moom yàgg na di bëgg a gindi nit ndax nit nekk ko rek taxul nga mat da ngay nekk nit ba pare nga nite ndax léeg-léeg am nit ñoo xam ne dañuy nekk ci biir nit ñi waaye duñ def yëfi nit moom nag dafa bëggoon nga nekk nit ba pare nga nekk beneen nit nag ci biir nit sëriñ bi loolu la doon jàngale yeete na ba sonn wax na bind na maa ngi jaal itam suma benn mag ñu naan ko maalik sii Cissé jinge ñépp xam nañ ko ku daan ànd ak góor gi la foo ma sa fekkee waxtaanam mu ngi ci wetam waaw di ko jaale itam nag suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ñuy gis te ñun duñ leen gis ndax góor gi dafa amoon may ak yàlla xam naa mu ngi woon ci àdduna bi rek waaye xamuñu sax ndax Cheikh naa Ahmad Tidiane al Maktoum wala turandooram Cheikh naa Ahmad Tidiane yi borom tariqa bi man damay xamu tax ndax moom la sax wala déet ndax am na yenn melokaan bu ko nit melee rek kilifa da ngay xam ne am na lu ne ci biir ndax yéen waa kimantewe TV maa di laaj. nekk ci kër ñaar fukki at yàlla wala lu ko ëpp sa dépense di dox te yoruloo benn kër nga yor mbooloo di leen dundal suba ak ngoon guddeeg bëccëg di faj xaajooy doomu aadama yi xaajooy soxlaay nit ñi ku am soxla wala mu am xew sëriñ bi dana yónnee lu mu niiw niiw dix million wala cinq millions te mësul génn fu mu toog te mësul laaj àddee itam loolu il foog ñu wax ko waaw bay baylu wutit ab tool loolu nag wax gi dana am lu muy niru waaye jubluwuñ ci lurul rek comme dangeen ñee laaj melokaanam xaj ne tuuti nañ ci wax ko waaye li ci suñ bët may ñu wax ko mooy ci kanamam ronam lañu màgg waaye li ñu gis ci moom mooy ku daan dimbale nit ñi la ku daan jàngale la ku daan def tarbiya la ci doomu aadama ku yoroon jikko bu rafet la jikko yonante bi sallallahu alayhi moo tax sax 92 ans yooyu xam ngeen ne mooy tudd Muhammad sallallahu alayhi wa kon moom dafa dellu rek ci Muhammad googu kon ngeen xam ne moom li ko fi indi woon mbir la waaw yeete na yeete boo xam ne bu fekkoon ne tey loole nit ñi nekkoon nañ ci tey xew-xew yu xew Sénégal nii du am moom nag ba Sénégal commencé yàqu rek mu wax ba sonn woote conférence wax ci rajo yi wax ba sonn nit ñi lank dëgër kecc ah munul jël nang nak di dóor mu dem kërëm tok jàpp njàmburam nek ca téré ya nek ca la ko yalla may waaye bu xew amé rek mu yonne ndaw rek la ca war mu def ko ca te du bousé bokkoon na ci jangalem wax dang koy wax fa mu joté ndax wa dañ ko fekk muy joy ñu ne ko loy joy mu ne dañ ma wax fekk ma passé wax fekk wax joo xam ne paase na nga nekk ci di nettali ba mu jaral la coow amul njariñ beneen bi ñu fekk ko muy jooy ñu laaj ko mu ne dañ ma wax fekk ma rom fekk booba jotaguma waaw wax lu jotagut it baaxut moom dafa bëggoon nit ki am fulla ci boppam surtout nag jàngal ñu nan la ñuy soloo col julit dafa war a yiw julit dafa war a am melokaanu julit waaw sëriñ bi képp ku jaar ci toolam rek mana ci toolab digleem di nga am col bu rafet di nga yiw di nga bëgg lu set di nga wax dëgg di nga maandu di nga fonk mbokk doo wax génn ca doo jiima kere histoire di not sa morom doo jiima sosal sa morom doo jiima tooñ sa morom waaw doo jiima sosal sa morom doo jiima taqal sa nawle te biir Sénégal nag bokk nañ bokk goo xam ne koo dóor tey balaa jant ngeen bokk maam sëriñ bi xamoon na loolu ba moo tax tënk na ko ci conférence yëpp kenn mënul wax lu mu waxul woon waaw moom daal mu ngi nekkoon ci taamuruna bil maarufi wa tanhawna anil munkar te it bokkan na ci li ko jaaxalit mooy alquran bi nga xam ne mu ngi ñëw ci maamam rasulullah sallallahu alayhi te muy lettre boo xam ne yàlla moo ko jox yonent bi muy suñu repère ah suñu demee ba jullit yi mën a fen léegi léegi wax léegi génn ca te alquran ne sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi wa huwa al asisul hakim ya ayuha allazina amanu lima taquluuna ma la tafaaluuna kabura maqtan inda allah an taqulu ma la tafaaluun yàlla ne yéen doomu aadama yi yéen julit yi ni gëm ngeen yàlla li ma taquluuna ma la tafaloon lan ngeen tax moo tax ngeen di wax ba pare rek génn ca wax ja wax ba ñëpp dégg nga xëy génn ca moom la moom laa dégg ñuy wax léegi wax waxeet loolu bokk na ci li mu tere asgor yàlla ne kabura maqatan hindallah an taqulu ma la yàlla ne man yàlla man mi nga xam ne may buur jéppi na gor boo xam ne day wax ba wax ja ñépp dégg ko mu sotti ca roseet sotteeku ci sëriñ Seex tere na ko tere na loolu tere na lekk alalu jàmbur tere na lekk loo xam ne léwu la tere na itam dugg foo xam ne du sa place waaw maandu ci xanam bu nekk loolu itam bokk na ci li nga xam ne yar nañu ci ñu bari jamono bu ne yeete na daal yete boo xam ne bu fekkoon na tey lim fi bàyyi jaar nañ ci loolu rek doy na administration jàmm am wallahi tracé bu mu tëral doy na administration bu ci àddina bi yëpp jaaroon ma ne problème du am yàlla nag moo am pay moo mën a fay suñ ko ñaanal yàlla ñaanal na ko suñ ko ñaanal itam moom liggéey na loo xam ne incha allahu dana daje ngërmaande rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag ñu ngi koy jaale mbokk yépp te itam ma xamal leen nag tey kilifa gu mag gu mat kilifa gu ànd ak lu garaaw lu rëy ci wàllu yàlla moo dem te xam-xam boobu nag nga xam ne tey ne naa leen ñu ngi koy jaale suñu mbokk taalibe yeneen yi nga xam ne itam def nañ ko kilifa te kenn gisu leen te ñoom ñu ngi ñuy gis te xam ngeen li may wax moo na doomam jooju de ñuy wax sëriñ Moustapha Sy na yàlla yokk leeram ah yaakaar naa ne jël na ci mbir yooyu lu réy réy loo xam ne ah man de mësuñu toog waaye nag am na lu ma xam waxuma ko it pour lenn tax nag waaye góor gi moom toola bi dafa yaatu yaatu boo xam ne ah kum ci tibbal rek ku jara bàyyi xel nga ku jara bàyyi xel ci côté bu nekk waaw ndax bu ko neexoon tey jii mën na yëngal lu rëy te yàlla nag moom rek li ni mën a am am doole leneen loo am lu dul yàlla doole ji lu mu rëy rëy dee daanu ci suuf muy nguur muy ay otoog muy alal ak ñàkk rek dem rek comme nag loo mën a yor lu dul yàlla danga koy ñàkk waaye waaye na ñu bàyyi xel nag ne yàlla mu ngi fi te moo fi nekk tey moo fi nekk ëllëg àdduna bi lu muy yàgg-yàgg daañ ko fi bàyyi dem su ma yu muyitukum su ma yooyukum su ma ilayhi turjawoon te xalaqal mawta itam wal ayaat man dama yaakaar nag ne suñu mbokk yi def politique def ko métier ba fi mu nekk nii mu yàq Sénégal bés bu nekk dem nañ ba sax sécurité sax amatu ci réew mi da ngay toog di sa biir kër di waxtaan ak sa waa kër ñu fekk la fa dóor la bal walla welo romb la këf sa saak daw jigéen ñi ñemetuñu dem marché te lii lépp suñ Cheikh waxoon na ko balaa lii di ñëw tey moom lii yépp waxoon na ko. waaye dafa mujj nag comme moom boo waxee ñi war a jàpp wax ji utiliser ko pour ñëpp jariñoo ko duñ ko defee nam ko bëggee <laughs> tu jël yar di dóor mu dem këram toog ñaar fukki at wala lu ko topp yoo xam ne ku la ne gis naa ko ah gis bi day gis bi day jafe na dara war ko na lu melookaanu nit ñi rek ndax wor mooy seen dund tappale mooy seen dund wax du lu dëgg mooy seen dund wax ñu dégg la it daraja wut daraja yu mel noonu day jikko yu mel noonu taxoon na bokkoon na ci li nga xam ne moo taxoon fa mu nekk mu nekk fa rek te yaakaar naa ni itam demem bi it kenn mënu cee wax lenn na moom daal ñëpp ay dégg rek ne góor gi jugee na fi dem na waaye kenn mënu laa nettali dara ci mbiram ku yàlla suturaaloon la ku yàlla mayoon la góor gi li ko yàlla mayoon dafa rëy lool lool lool te mu mën a def lu rëy waaye mu am lu bari lu mu bàyyi xel waaw bon nag euh, waa Kimantele yéen de naw nañu len bu baakha baakha baax sen télévision bi yàlla nako yalla yok assalamu alaykum wa rahmatullah